waaye parfois sa solo doone yow mii yaa ngi def impact en fait phénomène au talent parce que ba nga bàyyee pain ba tey la balaage xew ah. waaw balaage xew na léegi tey sol naa tubéy bu kii sol ma balaage sol jean laa sol rek def ay tuuti tuuti gazelle def chemise mais wàll léegi ci wàllu sañse wàll léegi ci wàllu sañse wàll dafa màgg quand même parce que daan nañu gis wàll ci kaw seen daan na way ba ci yàgg xale yu jigéen ñëpp seen xol yi féex. non mais loolu Foucha la sol keroog ak Foucha Keller ak. non non non non maa ngi ñëw xale yu jigéen ñëpp seen xol yi féex. ñaari Foucha la parce que dina créer benn danse boo xam ni bu koy def dina yëkkati semis bi wala mu yëkkati. aywa ñi nga xamante ne ñooy liggéey pour ñu am leen dañuy yabaate yabaate boo xamante ne projet boo leen indil ñu ëpp ci xëpp ci kaani wala salteel ko xajamal ko

dénk ministre de la culture. Thiam Dogo waaw Dogo. Ah. mu liggéey dani moom le président fan. ministre de l'intérieur ministre nag président yaa ngi xool. Ah. waaw mais mais moom ah, mais attends moom mi bu nekkee intérieur. day teel waaw moom mi moo ne intérieur. xam naa ne nag du ñàkk yenn ci ay nit du ñàkk yenn ci ay seytaane du ñàkk ci yenn ay nit yoo xam ne dañoo inconscience dinañ dugg ci samay commentaire naan ma li ngay wax nii amul benn sens ak waaye sa waay lii du dara ak ay da ngeen a soxor du ñàkk genre commentaire yooyu foo tuddee genre Wally Seck yi di nga ko gis mais pare naa pour assurer pour pour pour recevoir seen commentaire yooyu mais képp ki nga xamante ne ni pare nga pour soutenir góor jigéen parce que soutenir góor jigéen weesuwul di jàppale Wally Seck ci li mu nekk di def képp kuy soutenir góor jigéen te nga abonné woon ci sama conte nag man yeewi naa la quoi bu fekkee da nga abonné woon nga activer cloche de notification moo xam TikTok la moo xam Facebook wala YouTube ak bépp plateforme bo xam yaang yaa ma fay suivre ba nopi bëgg a wali Wally ci limi def man yeewi na la quoi parce que soxlo ma sar yoy man man lima ma soxla mooy ay nit yo xam da ngay ni and ci dëgg gis nga nit loko ko bëgg bëgg bëgg du téré boko waré wax dëgg dang ko ko wara wax. sa waay mënuñu chaque année saa yu say wali Wally Seck def genre affaire yu melni après bu waxé mu ne xaw ko woon tayu ko woon ma ko couleur góor jigéen nga ko bu baax. Wally Seck xàmmee nga couleur góor jigéen bu baax couleur yi ngay jël di ko sol te lii da ngay bàyyi ba ci période yi nga di ko def Wally Seck bul na bëtu ñun xam nañ lépp néew ñu la góor jigéen nga de mais yow ci ñiy soutenir góor jigéen ñi fii ci biir senegal ci nga bokk nee nga nag yee yaay ku ko wax da nga koy def lii da koy def laa mayatuma kenn lii gis nga ñun sénégalais ñun ñoo la mayatul yow ngay promouvoir góor jigéen ci si suñu biir réew mi gis nga sa daal yi nga sol ñemewoo ko sol dem Touba di nuyu ji sëñ Muntaxa ñemewoo sol sa dàll yi dem Tiwaawoon nuyu ji sëñ Mbay si Maasoor ñemewoo ko sol dem Njaasaan ñemewoo ko sol dem Yoof kon lan moo tax nga yag ñu sénégalais yi dem toog si plateau télévision sol sa dàllu góor jigéen sol nga fi tisatu góor jigéen gaa yi wax jëm kaw jëm suuf nga ne déedéet sol nga fi ay dàllu góor jigéen moo ngi nii tey leer nañ ñi ñëpp gis couleur bi ñëpp gis dàll yi nga sol sol nga fi yor nga fi ay ay saagu jigéen lu nekk Wally Seck def nga ko fi te bu ñu waxee rek man li ma gën a métti ay seytaane yenn ay nit ñoo xam ne fii la ñu juddoo ci Sénégal yaroo fi màggoo fi boo tuddee Wally Seck ñu ne dañ lay saaga quoi gis nga man li jëntew ma Wally Seck comme ni ma leen ko waxee woon keroog keroog bi may def vidéo bi di wax ak gars yi nga xam ne ñoo ko fekkoon ci concert bi naan leen concert bi waroo leen ci woon dem naan du am mais man sama yoon nekko ci Wally Seck am na am na ñu may gis ci commentaire yi waaw bu dee sa yoon nekku si moom nga maan ci moom lan moo tax nga koy tudd xam naa ne yéen genre yooyu di ngeen dugaat fii di ko défendre mais fi ngeen may fekk gis ngeen Wally Seck yéen lay influencer yéen lay naan seen yur yi mais pas man man Wally Seck yëngalu ma man du ma diglu son Wally Seck du ma dem ci concert am Wally Seck du lekk sama ñàddaram parce que ay misigam safuma ay manière am safuma ay doxinam safuma ay jëfinam safuma parce que Wally Seck li mu nekkee ñun sénégalais ñun ñoo ko ci bàyyi surtout yéen ñi nga xam ne yéen a koy soutenir di ko dooleel ak di ko jàppale ci li nga xam ne moom la nekk di def yéen doo leen rus sax di soutenir di jàppale koo xam ne à chaque fois bu xëyee di leen fenloo parce que di leen fenloo weesuwul ngeen bëgg a seetal Wally Seck ci ne yorul drapeau góor jigéen fii ci Sénégal di leen dooleel waxuma Wally Seck góor jigéen la parce que loolu teguma ci sama bët mais li ma teg sama bët loolu laa mën a wax te mooy li muy dooleel góor jigéen fii ci biir réew mi fii nag góor jigéen du fi naanee ñeex bu fekkee yow lañ jàpp ne yow yaay ki gën a influent yaa ngi nax sa bopp parce que jàpp nga ne sax moo tax keroog ci sa biir sa biir concert boobu dégg naa la nga coow li su ma ci duggee léegi mu am ndaat saay gis nga bu la say sëriñ naxee wala say entourage nax la wala ñu lay jey ba nga yaakaar ne bis boo duggee ci coowal Ousmane Sonko lii nii day fay yow boobu ngay fay yow booy naagoo sa naagu bopp ba yaakaar ne yow mii war ngaa mën a song ku sell ki daan ko yaa ngi nax sa boppan ah. di continuer di def say yëf mu sell mi li ñu li ma la mën a wax te di la ko wax nag mooy sa lii ngay def soo ko defee dañ koy wax bu fekkee da ngay tiitalaate wala ngay xuppaate ñun ragaluñ la faale wuñ la Wally Seck moomoo Sénégal amoo fi lu dul sa kër ak sa oto sa jabar ak sa doom ak sa famille amoo fi lu dul loolu ëppale woo fi kenn ba wafee mën a nekk di def loolu la neex te kenn du ko wax yéen ñi jàppale Wally Seck nag encore une fois maa ngi leen di répété sànq ba léegi dama leen bëgg a xamal ne li ma leen man mënoo leen ma tere wax dëgg dinaa leen xaar si ay commentaire nag ngeen dugg naan da ngeen koy défendre mais bo len di défendre ni da ngeen koy défendre ci deug bu fekke da ngeen ko bëgg bu défé luddul yoon ngeen ne ko eh walé li nga def ni tegoo ko fenn mais da ngeen ni and ak nit ki muy def lo xamné dara rafetu ci ngeen ci and ak mom nan ngeen ni jappalé kuy jappalé goor jigen xana sax lo len ko bëgg-bëgg bu démé bay jappalé goor jigen te ngeen ni ay doomu julit ngeen wala ay doomu chrétien parce que julit ak chrétien amul kenn ku ci accepter goor jigen yeen ngeen ni ay julit ngeen wala ay chrétien ngeen après ngeen sétane nit ki muy dolel goor jigen ngeen da ngeen ko ci jappalé pour lan ak naan deful dara ak lii dara nekk si lii dara nekk si kon yéen boo leen xëyee suba am possibilité bu mu am ay góor jigéen woo leen di leen wax ne ngeen ngeen soutenir leen yéen da ngeen koy def képp kuy jàppale Wally seek rek nañ la yemale yow ak waal Seck yéen ñaar yéen a yem man nag lijjantiwu ma lu mu am lijjantiwu ma lu mu amul lijjantiwu ma fu muy fu muy tëdd lijjantiwu ma lu mu amul lu mu am parce que ay Sénégal dafa gaaw ci dangaa soxor man lijjantiwu ma Wally Seck ba koy soxoree li muy am ak li mu amul loolu moom la man li may am doy na mu sëkk maa ngi sant yàlla bu baax a baax xaw ma nu mu mel musuma koo teg bët musul faj sama soxla kon kooku su ma ko bañee wala ma koy soxoree damay taadeel sama bopp aw ma jotam mais fii suñu Sénégal la ñun ñoo ko moom bu ñu gisee lu dul yoon dañ koy wax su ñu gisee loo xam ne yoon la te ñu war ko apprécier dañ koy def mais Wally Seck dañoo gisul ci moom lenn lu ñu war a mën a apprécier gis nañ ko nag muy ne day def ay social ak day dimbaliwaate ay nit parce que fii kenn ku nekk yàlla lim lay jox dala koo dénk waaye may la ko boo ci joxee baax na boo ci joxul baax na li am solo mooy nga fexe ba dërëm bi ngay am nga koy jëlee fu lew doom loo xam ne di nga si mën a tabax jàkka di nga si mën a dem aji màkk waaye fii bari na fi ñoo xam ne ñu ngi tuukarewu ya nit ñi di leen jël di leen teg fenn fi te teguwuñu fenn ñoom matuñu sax matuñu sax liñ leen liñ leen liñ leen di jox ñoom parce que ñoom mérito wuñ sénégalais yi jox leen bopp mérito wuñ sénégalais jox leen respect wala c'est respecté woo sénégal yi Wally Seck respecté woo africain yi Wally Seck respecté woo der bu ñuul respecté woo diine l'islam parce que fii ci suñu réew mi ñu ne quatre-vingt-quinze pour cent ay musulman lañ à chaque fois ngay def sa yi ngay def nii bu ñu waxee ñi la wër ak say entourage ak di jaay affaire da ngeen a arrogance di wax ak nit ki comme si yéen yéen a nekk si dëgg nekkoo leen si dëgg boo leen bañee ñu wax da ngeen di bàyyee jëf tant que yéen a ngi def ñun dañuy wax moomoo leen suñu làmmiñ yi loolu dama bëgg mu leer seen bopp seen yëfu góor jigéen yi arrêté leen ko waaye parfois sa solo doone yow mii yaa ngi def impact en fait phénomène au talent parce que ba nga bàyyee pain ba tey la balaas xew ah. waaw balaas xew na léegi tey sol naa tubéy bu kii sol ma balaas sol jean laa sol rek def ay tuuti tuuti gazelle def chemise mais wàll léegi ci wàllu sañse wàll léegi ci wàllu sañse wàll dafa màgg quand même parce que daan ñu gis wàll ci kaw seen daan na way ba ci yàgg xale yu jigéen ñëpp seen xol yi féex. damay loolu Foucha la sol keroog ak Foucha Keller ak. non non non non maa ngi ñëw xale yu jigéen ñëpp seen xol yi féex. ñaari Foucha la parce que dina créer benn danse boo xam ni bu koy def dina yëkkati semis bi wala mu yëkkati. aywa ñi nga xamante ne ñooy liggéey pour ñu am leen dañuy yabaate yabaate boo xamante ne projet boo leen indil ñu ëpp ci xëpp ci kaani wala salteel ko xajamal ko

ils sont non non non non non ay non non du matin. non non non non non président non infrastructure. non non président de non nationale non non koy. di non affaire étranger Serigne Fallou des non mooy non ministre des affaires étrangères. non di nuyu ministre de non di nuyu aussi non non ministre des transports routiers. Ah. non non non non Ousmane non non